alhamdulilah ñu ñëw seen revue de presse lamb aju may tey jii la ca gën fës combat Modou Lo Ama Baldé xañ na arène nationale wala Léopold lañ koy yóbbu laaj nañ ci journaliste yi ku ci mel ne Assane Waalo Gueye mu ngay xam ne stade Léopold moom jamono ji ci defaraat la toll di nga xam si ni mooy zeng ya newoon ci kaw dañ koy defaraat ku ci mel ne Bekay Koundoul mu ngay xam ne combat nag fi toll ni jotaay boo dem ñoo koy waxtaane mu di journaliste yi li nga xam si ni mooy ay drapeau Sénégal ngir ñu supporter Sénégal ginnaaw loolu suñu làmb ñu xamal ne Siteu bu Ngor digganteem ak Thiatou Rebeuss combat boobee jëlee nañ ko ci la mars yóbbu ko ci la mars la ko waral mooy appelu Mame Limamou Laye bi ginnaaw loolu suñu làmb ngi ñëw ci Serif Diallo moom mi tëggoon diggante Njaga Doole ak ñaar yaar mu ngay xam ne ne am na satisfaction am na contentement am na mbégte moom ak mouvement bi mu àndal di réew mi ginnaaw loolu suñu ñu xamal ne xamal ne taxawal nañ combat bu neex diggante Ahmed Dem ak ki xam si ni moom la wax Jackson suñu làmb ñu xamal ne waa Diamond Events ñoo fa jaar taxawal nañ combat bu rëy ginnaaw loolu soosé ma ngay analyser combat bu rëy bi ñuy xaar ni ki dimanche diggante Youssou Ndour ak Thiatou Yoff ma ngay xam ne Youssou Ndour combat bi mooy testam bu rëy bu mag a mag ci wàllum làmb bu daanee ki xam si ni mooy Thiatou Yoff lamb dina ko bàyyi xel dinañ xam ne loolu maam lees ma ngay analyser diggante buur ak nger bu sab ma ngay xam ne ne amul lenn lu koy xaar ci combat lu dul ndam ndax bu ko kii nger bu sab daanee ma ngay xam ne fa la ber daaraam nekk ci écrit boppam kon jugee na rok énergie fa lay waajee digganteem ak ki xam se ni moo di tonnerre ginnaaw loolu keneen ku jugee écrit parcelle mbooloo moo di France suñu lamb ñu xamal ne maam lees moo kàddu yooyee ndax Franc dañ ko waxoon ne day joxe cinq cent mille balaa mu fay jóge mu bañ waaye suñu laa mu xamal ne ca mujjantal ga ba nga xamee ne affaire yi dëgër na foofee la mujjee joxe li nga xam se ni moo di cinq cent mille suñu laa mu xamal ne personne moo moo leen dénk kàddu yooyee ginnaaw loolu suñu laa mu indi leeral ci mbër yi nga xam se ni wala VIP yi nga xam se ni ñoo fi gën a néewle palmarès wala ñoo ëpp ay defet ci li nga xam nga am